ndax Mouhamadul Bousayri ñëpp xam nañ ni du senegale égyptien la mu ngi bokk ci waa Misr waaye Seydil Xaaji Malick si boo xoolee li mu bind si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na laa tuaddu wala tuxsa boo ko doon lim do mënoo koo lim mënoo koo tënk waaye fi nga xamante ne li ñuy wax naan modeste ak honnêteté moo tax mu jël li nga xamante ne mooy téere Mouhamadul Bousayri xamante ne fukki fan yi si lay jël bés bu nekk am. paas yi nga xamante ne ay chapitres yu ñuy jël ngir wax ko si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ay mu'jizaatam ci ay karaamam ci yi nga xamante ne da koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee sax Mouhamadul Busayri yi bi muy tagg yonent bi sallallahu dafa ko tagg tagg tagg tagg mujj gi daal mu ne fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun mu ne daal yonent bi lu ma ko mën a jox ci daraja lu ma ko mën a jox si cër lu ma ko mën a tagg mënta génn cadre doomu aadama ñu ne dama jékki-jékki rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ne ko waaye nag wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi waaye nag kooku mooy gën ki ñëpp ku yàlla bind yonent bi sallallahu alayhi wa moo la bind Muhammadul Busayri boo xoolee ci biir burdu mi ngi wax si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko doon tënk rek yi dañuy faaqan nabi iina boobu ba tey mi ngi ci mi ngi ci burdu mu ne faaqan nabi iina mu dafa dafa ropp yeneen yi bu doon bu doon dafa raw na leen si lan la leen raw mu ne fii xalqin ci ci nga xamante ne mooy bind yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy tagg dane ko xuliqta mubri an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tasha mu ne yàlla dalaa bind musal la ci benn bépp ayib boo xool Seydina Muhammad sallam dafa mel ni moo bind boppam ka annaka qad xuliqta kama tasha dafa mel ni yàlla dalaa tëj si magasin rek ne la bindal sa bopp nu mu la neexee mu ne wa ajmalu minka lam ara qatu din ku la gën a rafet man musuma koo gis mu ne wa afdalu minka lam talidi nisaa ku la gën ba kero àdduna di tukki jigéen du du ko jurati moo tax mu ne faaqa nabi ina dafa leen a raw dafa raw yeneen yi fii xalqin ci bind wa fii xuluqin ak si jikko yàlla bi mu koy tagg ci alxuraan ah, ci lan la ko tagg ci jikko tagg ko ci ay maam te yonent bi yàlla moo ne ko wa taqallubaka fi saajidin yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo toppee ay maamam ba ci Adnaan amul benn maam boo xamante ne mës na jàdd yoon ndax yàlla daf koo préparé ci mën sellal li nga xamante ne mooy askanam moo tax mu ne yàlla ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yàlla si jikko la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim boo xoolee ulama u tafsir yi nga xam ne dañoo jàng tafsir sax biñ koy firi dañ nekk wa innaka la ala diinun azim mu ne faaqa nabiina fii xalqin wa fii xuluqin mu ne nag ñoom séentuwuñ ko sax ci nga xamante ne mooy xam-xam wala teddange wala teddaange mooy mooy karam mu ne walam yu daanuhu fi ilmin wa fii karamin kon Mouhamadul Buseyri dafa bëggoon yent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ci moom ay mu'jizaat yoo xamante ne ñu daan taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéem moo tax Seydi Hadji gisee 10 jours ñu bëri dañ daan eh, werante ci nga xamante ne mooy bés yeeg moom nag mu bañ a am li nga xamante ne mooy li nga xamante ne day am loo xamante ne da koy sikki sàkk bañ a am benn rayb moo tax mu jël 10 jours yi moom Maam Raw Xaan Ngom bu Paal ñoo ko daan ànd di ko def daan ànd di ko def bés bu nekk ñu jël benn buntu ba nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne moom la ñu tëj ñu tëj ñu noppalu beneen jour bi xëy ñu def gàmm. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki neex way moom dafa dafa neex a tagg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo préparé yàlla daf koo waajal ci lépp waajal ko ci juddu. waajal ko ci askan waajal ko ci lépp ndax boo xoolee nee naa gàmmu tey jii bu nee maada nafaalu fil ixtifaal bil mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam lan la def bu ñu demee naan dañuy màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi fay def lépp alquran da koo indi danay naqra'ul quran dañuy jàng bu jàng alquran yàlla moo wax moo wax ci alquran ne faqra'u ma tayassara min alquran da ngeen jàng lépp loolu mën ci alquran ak nu mu mën a toll faqra'u ma tayassara min alquran kon xam nga loolu yàlla dalil bi leen na foofu ñu ne ak lan ngeen fay def exemple bu ñu demee gàmm bu ñu demee Tiwaawan lan lan lañ fay def mu ne nazkurullah te yàlla moo wax ci wa ne wadkurullaha kathiran mooy fàttali suñu borom subhaanahu subhaanahu wa taala yaa yaa ayuha alladina amanu dkurullaha dikran kathiran fàttali ko suñu borom subhaanahu wa taala ak lan namdaxu rasul tagg yént bi wa sallam te yàlla moo moo ñu ko tagg ndax yàlla ma ne wa azzaruhu wa nasaruhu azzaruhu mooy ay azzamuhu nañu màggal yént bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tagg yi nga tagg si xasiida yeeg yooyu noonu mu ne nattameo alal xeyri dañu daj si ay jiw di waxante lu baax wa taawanu ala birri wa taqwa ak lan na nadkuru baaduna bi taa ñuy fàttalante ndax yàlla moo wax si alquran ne wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin ak lan nutaimu taam togg ay ñam jël ay nag togg jël li nga xamante ne mooy ay giléem def ay teraanga jox julli di ñu lekk te yàlla moo ko santaane sa alquran wa yutaimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira nadu allah bi xeyri dem si jumaa yi dem si jàkka yi dem ci ci li nga xamante ne mooy zaawiye yi dem tàllal suñu loxo sunu borom subhaanahu wa taala di ko ñaan te yàlla moo wax si alquran ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum fin bi mi ngi naan mu ne fa in kaana fi'luna kulluhu amara bihi alquran bu dee lii yëpp alquran daf ñu koo digal mu ne fa aynal xaraamu isan ana léegi lan moo xaraam ci gàmmu ñi nga xamante ne léegi sax dégg nañ màkka léegi pare nan def seen calendrier léegi bokk di màggal guddi yent bi sallallahu alayhi wa sallam ma indi nii yëpp ci alquran la de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xool moom mooy njub njub Ahmad Shawqi waykat bu mag la boo xool Umm Kalthum wayam yu bëri ay xasiida kii lay jël ay abiyaatu kii Ahmad Shawqi moom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo moom gisuñ ne Muhammad moo juddu moom dafa gis ne njub ci boppam moo judd alhuda moo tax mu ne wulidal huda fal kainaatu diyaaw mu ne lépp lu nekk ci àdduna bi muy doomu aadama muy li nga xamante ne mooy bàyyi ma yi alkaïnat lépp dugg na ci biir mu ne diyaa u danoo kontaan danoo bëgg ci lan ci gudd juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa famm zamaanu mu ne wa famm famm mooy mooy mooy gémmin mu ne gémminu jamono ji tabassumun dafa muñ tabassum mooy muñ wa sanaaun ak di cant ci lan ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam i nga xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bidaaya boo gis day metti bidaaya boo gis day metti yonent bi sallallahu alayhi wasallam Makka def na fa 13 ans ngir lan i'laa kalimatu laa ilaha illa ngir samp lan benn kàddu muy laa ilaha illa allah metti na ndax ay mbokkam ci boppam ñoo daan taxaw naan ko lii du fi am ku mel ni abu lahab yonent bi sallallahu alayhi bi mu wootee waa Makka ay bàjjanam ay nijaayam ñépp mu wootee wax di leen waar mel ni xale bu ndaw bu ñëw woo ay mag rek commencé waar abu lahab ñëw rek jóge fee ne ko ko tabban halakan laka alihaza jamaatana ne ko toskare na la ndax lii lii moo tax nga ñuy déranger di ñu di boole yéen bi sallallahu sëgg am lu ko metti waaye yàlla moo ne ko noppi man maa lay tontul boo xoolee alquran yàlla bi mu wax qul huwa allahu ahad yàlla ne ko qul waxal huwa allahu ahad waxal ne yàlla kenn la qul auzu bi rabbil falaqi qul auzu bi rabbin naas mais boo xoolee tabbat yadaa yàlla du yónnee diw ne ko saagal ma sa baay ndax abu lahab baayam la abul xusaa la tudd ibnu abdul muttalib baayam la moo tax yàlla na ko noppi ma maa lay saagal ndax loolu bokk ci xorma bokk ci teggin yàlla ne tabbat yada abi lahabin wa tabba maa agna anhu maaluhu wa maa kasaba sa yasla naaran zaata lahab wa mraatuhu xamaalat alxatab fi jiidiha xablu min masad abu lahab mi ngi dund ay quran bi mi ngi existé te mënta tuub loolu moo lay wan ne alquran kàddu dëgg la waaye moom chaque altine yàlla dina ko génne safara woyofal ko li nga xamante ne mooy mbugalam ngir lan ngir li mu kontaanoon si juddu yént bi sallallahu alayhi wa sallam yént bi sallallahu alayhi fi mu réew yént yi boo xoolee kii ni shafaa yowmal qiyaama mu nekk bés boo xamante ne moo tax Seydi Haaji Maalik bi muy tagg yént bi dane li kulli wasfin xamidin xaaza afaala tafdil mu ne rajaul baraya yowma musdahami Seydi Haaji Maalik dane dene lépp loo gis ñu koy meloo ci xamid mu nekk loo xamante ne lu baax la lépp lu ñu jox doomu aadama di ko ko taggee wala di ko ko askanale mu ne yént bi sallallahu alayhi wa sallam xaaza daf làq afaala tafdil la ca gën lépp loo gis lu baax rek muy askan muy judd muy lépp lu gën rek afaala tafdil mooy la ci gën a excellent rek yent bi moom la làq mu ne rajaul baraaya mooy yaakaari jaam yi yawma musdaxami mooy bés ba nga xamante ne nit ñi dañuy buuxante mooy bés bu metti ba li lay misaal loolu ulul azmi yi mooy yeneen yi sa sa ñu salawaatullahi alayhim ñoom juróom lan waaye ëllëg yowmal qiyaam koo ci dem li muy wax mooy nas yi sama bopp kenn rek lañuy dem mooy wax ummati ummati sama xeet sama xeet kon kooku jannaa màggal bésam ndax bi ñu demee si Ibrahim Ibrahim dane man de am na loo xamante ne yàlla def ma koy toppee ñu ne ko lan la mu ne bi ma àndeek sama soxna di tukki tukki bu yàgg ba mu ñëw ne ko ki nga àndal kan la xam naa dañ koo bëggoon a nangu dara mu ne sama jigéen la mu ne loolu mu wax rek mu ngi yaakaar ne est-ce que yàlla du ko teg àtte bi ñu demee si Moussa muusa ne man maa doon xeex ak ki nga xamante ne mooy noonam ba ba dóor ko fa wakazahu Moussa fa qada alayhi qaala hada min amali sheytaan ba yàlla sheytaane dogal waa ji mën a mujjee jaare fa faatu donte yàlla jégal na ko ko fa xafara la innahu huwal xafuru rahim waaye moom mi ngi tiit yàlla teg ko àtte boobu ñu dem see Aïssa Aïssa man maa gën a dugg ñëpp ndax man nee na yàlla laa sama yaay yàlla la yàlla yàlla la laqad kafara allazina qaalu inna allaha thalithu thalatha te yàlla kenn la wa ma min ilahin illa ilahun wahid Aïssa nee na maa ngi tiit ci ngir yàlla àtte ma ko ñu dem ci nuux nuux ne man maa waxoon na yàlla rabbi laa tadara ala al ardi min al kaafirina dayyaaran mooy nuux woote na wala qad asana qad asana wala qad asana nuuxan fa labisa fiihim fa labisa fiihim alfa sanatin illa xamsina aaman wala qad arsalna nuuxan ilaa qawmihi waaw wala qad arsalna nuuxan ilaa qawmihi fa labitha fiihim alfa sanatin illaa xamsina aaman woote ne boo xool junni at yi juróom fukki at juróom fukki moo ko manqué woon waaye nit ñi wuyuñ ko moo tax mu ne moo tax mu ne yàlla rabbi laa tasar ala al ardi min al kaafirina waaw yàlla bu fi bàyyi kenn mu ne néeg googu ma néegoon nee maa ngi ragal est-ce que yàlla du ko àtte ñu ne da ngeen dem si sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne yàlla daf koo teel a joxoñ ñu dem ci moom mu jug nar a julli nar a kàbbal yàlla ne ko fi amul julli moo tax lépp lu waaye di mën a julli rek na ko julli fii ci àdduna bi